mom ngay ragné sa partenaire ndax dafa excité wala excité wul jigéen bu excité yaramam day tàng température am dafay yéeg donc dina gën a tàng que température normale donc yow miy góor boo amee seetlu tuuti rek ci ki nga nekkal su excité di nga ko xam ci température am ndax température bi dafay kawe dafay yéeg lool di nga xam ne kii am na envie xamante ne dinañ ko partager tey jii tontoo ko sunu mbokk Actu Sénégal muy jigéen ji excité ci weenam di nga ko xam ndax dina am benn augmentation bu xaw a yem dina mel ni lu yokk ci si boo ko seetloo dafay taxaw donc loolu tamit signe la signe jigéen bu excité donc boo seetloo aussi sensibilité bi day gën a sensible boo tegee sa loxo walla nga di ko nàmp di nga xam ne kii dafa am envi